mbaaw ci jamonoy campagne électorale bi nag ñi nga xamante ñoo yëngu ci wàllu politique kenn ku ci nekk ci coalition ba nga bokk wala parti ba nga bokk yaa nga yëngu ci gox boobee ngir sa coalition gagné benn bokk yaakaar nag ñi nga xamante ñoo ko fa teewal ràññee nañ ci ki nga xamante ni mooy Abdou Karim Sall moom nag takku taxaw waaye tamit fas yéene wane dooleem ak mëninam ci bile campagne ngir rek coalition benn bokk yaakaar bi nekk ci bopp gouvernement bi daal di gagné looloo waral fii ci permanence APR bi nag mu daal di dajale ay ñoñam joxe ndigal waaye tamit rangale ay wotoom ngir fas rek tàmbali liggéey bi noonu nag la caravane bi toppee mbedd yi mbaaw yëpp ci commune bi fu ci mel ni si Ndeye Marie Cyprès Zac Mbao Kër Mbay Fall waaye tamit bërëb yi nga xamante ni dañ fay nemmeeku ay mbooloo fu ci mel ni garage yi ba tax na sax fii si garage clando bi moom daanaka ñëpp rek booloo nañ jox ko një te dik ko seeni kàddu ndaxte nag ràññee ko ci seen wàllu woowee Abdou Karim Sall bàyyiwul dara bu laajee daw sax dina daw waaye bu laajee wayit mu way loolu la yëpp ngeen ñax askan wi rek ngeen ñu booloo dem voté ji benn bokk yaakaar loolu leen nag ngir rek ñu am ñoom majorité présidentielle ca assemblée nationale. ca cappaandaw la nag bu ñu seetlool ci li liggéey yëpp ak fimu mu jaar yëpp mën nañoo wax ne Abdou Karim Sall moom mën naa am yaakaar bu baax a baax ci yële élection rawatina ci gox bi di ndax askan wi tertoo ak tamit ni ko joxe një te dikk tamit seen fan ci juillet ñu dëkkmal.